man maa ngi Bassirou Sall di coordinateur Horizon 2019. kii toog sama sama sama gauche mooy vice coordinateur bi est chargé de l'organisation Je Manga mooy chargé de la communication je suis toog trésorier Horizon 2019. Euh, Horizon 2019 nag contact euh, ko tax a rek c'est très simple parce que dafa fait si si moment euh, le parti n'était plus animé il n'y avait plus d'animation dans le parti comme il n'y avait plus d'animation dans le parti nous, nous sommes ay ndaw parti nous sommes ay jeunes engagés engagé te bëgg loo parti bi si leen jëlee décision créer cadre boo xamante un cadre de concertation un cadre de dialogue un cadre d'ouverture, boo xamante ni dina permettre ñun ñi nga xamante ni ndaw parti bi la ñu mën a doxal parti bi mën a fexe parti bi an waat mën a fexe parti bi li nga xamante ni président de la ñu koy xaar si Thiès ñu jot si donc loolu moo waral de horizon 2019 jub te loolu nag bi mu nekkee léegi ñu ngi si parce que déjà am nañ cahier d'activité ñu ngi si moo waral euh, ñu ngi préparé nii benn forum Euh, si cahier d' activité yooyu aussi am na yeneen yoo xamante ni mi ngi ñëw suñu si forum bi incha allah rabbi nit ñi dañ ko xam ou bien nekk sama wet si suñu liggéey moom tamit des wax waaye li mu bëgg ba ba nit ñi xam ko ba xam ko mooy horizon 2019 lépp loo xamante ni doxal na parti bi on s'engage à lépp loo xamante ni nag day yàq parti bi muy APR lépp loo xamante ni APR le luy doxal APR di ko massifier on s'engage le loo xamante ne nag da koy yàq bëgg doon blocage dinañ taxaw fexe loolu ñu jëlee ko fii de telle sorte que suñu parti dina mën jëlan kanam surtout fii si nga xamante ni mooy à fi ñu nekk bëri na ay ndaw actuellement nii soo xoolee soo xoolee pratiquement y a des étudiants y a des élèves y a les commerçants y a tout képp koo xamante ni ndaw nga te dëkk biir ibbil la bunt woo la pour nga pour nga ànd seen ñun actuellement depuis ko lancé en octobre ñëpp xam nañ horizon 2019 Massif yéen bu baax a baax a baax a baax parce que ñun amuñu jot wër di wax liggéey la ñuy def liggéey rek ñu tax a jóg si loolu la ñuy nekk ñëpp ñu ngi gis ñu ngi dem ak dikk soo xoolee université Thiès euh, lépp luy université étudiants yeeg yooyu dañ fay dem di leen sensibiliser si li nga xamante ni mooy njëriñu Thiès waaye si li nga xamante ni réalisation de la du président de la moom lay def am na aussi ay groupement de femmes yoo xamante ni si biir bàyyiwuñu kenn c'est pas seulement des jeunes mais am na ay mag ay ndaw ku nekk parce que ñëpp xam nañu politique politique massification la lépp luy dooleel parti bi su dee benn nit la sax woo nañ ko pour mu ñëw réunion horizon 2019 ñu àndandoo liggéey dans la discipline. alors euh, tey ci li nga xamante ne moom mooy li ngeen fixé wu objectif mais am ngeen feuille de route boo xam ne horizon 2019 parce que ma ko déggee est-ce que mën ñëw ci feuille de fait c'est très simple déjà on vient juste euh, de vous dire que avons organiser un forum qui va porter sur euh, le PSE les acquis du PSE dans la région de Grèce. quel impact pour la jeunesse économique quel impact social aussi pour la population en général donc M. si c'est un forum il y aura euh, la présence de M. Augustin le docteur Augustin Euh, ñu koy nuyuwaale au passage vraiment di doon koo xamante ni ku am dal la c'est le coordonnateur départemental di ku di ku tijjeeku aussi kuy déglu ñi nga xamante ni ñu ngi liggéey si parti bi. Euh, de ki yor panéliste bi aussi c'est monsieur Ibrahima Wade di DG Boss ñëpp xam nañ ko moom tam parce que wàll boobu lañ ko dégg liggéey bi muy liggéey Sénégal ñëpp xam nañ ko. Euh, aussi le directeur de l'ONFP ki nga xamante ni moo de la formation professionnelle office national de formation professionnelle professionnelle monsieur en l'occurrence monsieur Sanusi Diakhaté. Euh, il aussi le le le le le, le directeur du le, le proviseur du lycée technique monsieur Daoud Sène bi nga xamante ni ñëpp xam na ni technicien la si en matière de la formation professionnelle surtout au niveau de Thiès moom aussi dina dina dina bokk si parti bi y a aussi le directeur du PUDC donc bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu kenn et tous les responsables de la région de Thiès les responsables politiques de la région de Thiès ak les responsables moraux de la région de Thiès et aussi du département tous département aussi invité nañ leen pour ñëw parce que lool moy politique président de la République def ñep xam nañu il faut jot na ñuy wane encore une fois réalisation surtout au niveau de Thiès ñun ñëpp xam na ni président de la République bàyyiwul Thiès ginnaaw te Thiès aussi desul ginaaw pour accompagner ko te 2019 rawatina li si des bëreetul inshallah allah rabi dinañ wane carrément 2019 le président de la République aura la majorité à caisse kooku inshallah incha ci rabi ñu ci si liggéey dox bon panel bi tout simplement so xolé comme niko ñep ñëpp président de la République. déjà investissement yi mu def rek au niveau de la formation professionnelle au niveau de kees lépp gis na loolu moom dafa leer si bët ñëpp. beneen bi stop politique ak gouvernement continuité la ISEP bi gis nañ ko auditorium bii ñu ngi koy soo fa duggee léegi xam ne auditorium bu njëkk dafa taxawoon muy cinéma amitié ba tojoon ñëpp xam na ni président de bi mu ñëwee yegale na ko.

la la li nga xamante ni mooy euh, inscription pour les cartes d'identité biométrique tijjiwaat na tey tey tey képp ku inscrire du woon mën nga dem inscrire ñu gisul woon seen carte aussi jotuñu ko woon retiré mën nañ dem retiré ji seen carte comme ça nit ñi voté dans la paix et paisible bon transfert xanaa ñeneen waaye waaye waaye ñëpp xam nañ ni ndam bi daal euh, fii au niveau de Thiès ñu ko jotu am ñëpp dañ ko mérité au niveau de la paix ñuy jot am ndam gox yi ñu ko am dañ ko mérité transfert nag ñeneen na ko doon def mais mais mais du APR man de xaw ma benn gox boo xamante ne APR def nañ lu dul liggéey au niveau de la zone nord boobu nga xamante ni ñoo fa nekk su doon dañuy transféré kon tey kenn waxatu ko waaye liggéey la ñuy def gëm suñu bopp wane suñu bopp fexe nit ñi gëm président de la République ak ay vision parce que ay affaire u yooyu ay affaire u njuuj njaaj la te lépp loo xamante ni njuuj njaaj la ñun horizon 2019 doxuñu si waaw ñun si li ñuy dox mooy ay principe ay valeur ay gëm-gëm yoo xamante ni bëgguñu si dugal pour lu leer yoo xamante ni si leen bëgg a conduire la population pour ñu